aousubillahi min shaitan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yu tedd yi topp seen télévision As-Samadiyya euh, noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara euh, ñu ngi ci ànd ak Mafatihul Bichri TV euh, ñu ngi fii ci Soxna Astou Gawane nus bin di waajal màggal gi nga xam ne ci lañ koy fàttalikoo di ñaar fukki fan ak juróom ci weeru diggu Tabaski bis boo xam ne sëñ bi moo ko joxoon ndigal mu ko daan màggalal boppam bi mu fi bàyyeekoo ñu di ci ñu ko ñu ko ci fàttaliku ñu ngi toog ak nag ñenn ñoo xam ne ci kër gi lañ yaroo soxna si moo leen yaral boppam ñu ay tànneef soxna ma assuloo ñu ngi ni suñ kanam moom sëñ Mahmadan Lo waaye soxna Assu Sam moom sëñ Sam Dula moom itam mi ngi nii toog soxna maam Fati Bas soxna ma Fati Xujja moom sëñ Abibu ak soxna ma Assa Mbàkke ñoom ñëpp ñu ngi fi xam naa day jox soxna assuloo boo ko defee ubbi kàddu yi rek li ñuy wax moom du lenn lu dul rek jëm ci témoignage yoo xam day jëm ci jëm jooju soxna Astou Gawane ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci kanamam mu yar leen ñu ko daan gis doxalinam ak i jëfam ak jikkoom yu rafet yi nga xam ne amee woon na ko kon soxna Astou bismillah. waa kër soxna Aïssatou Gawane bintu Xaadim Rasul man soxna Astou Lo moom Cheikh Mourtala maa leen di nuyu te di leen siyaare te di leen balu àq di leen baal àq te ñaan sama kàddu fekk leen ci jàmm te ñaan yàlla bis bi ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilah rabbil alamin ah sëñ Seex naa joxaan nag li ma bëgg loolu de aw sas la woo xam ne xam naa duma ci sori ndax euh, soxna si moom day koo xam ne mëneesu koo xam xanaa mën nañoo nekk ak moom rek nekk ci kanamam waaye xam ko yombut liñ ci xam ci moom daal xam ne ku bëgg sëriñ Tuubaa la ku bëgg sëriñ Tuubaa la taalibe sëriñ Tuubaa la bëgg ay bokkam mën na liggéeyal Serigne tubaa lool nag jëw ñu xam lu mu am dana ko togg jox ko njabootu sëriñ Touba gi muy ba ma duggee ci loxoom ba nëgën si nag muy ba mu nekkee ndula ak bi mu nekkee fii euh, tubaa gi nga xam ne fi la daan dikk di fi fekk sëñ Fallou ba mu xëy ko toxal si fii man bi mu koy toxal si fii maa moom ànd jógee ndula soxna Assou ndula la ñu bàyyi ba mu fay jóge waaye xamuñ ci moom lu dut ah, bernde ak yaatal ak bëgg ay bokkam moom rek lañ xam ci moom ndax ah, njabootu sëñ Touba gi dañ koo tegoon foo xam ne fañ teg sëñ tubaa rek lañ ko teg kenn ku nekk boo dikkee danga fas da nga ko fas yéene liggéeyal mu góor muy jigéen nag amu ci kenn nag ku koo xam ne danga danga da nga ñeme nga koo féete fenn muy ka ca mag ba ca ka ndaw mu sëñ Abdoulaye ba sëñ Bilaat nekkee ak sëñ Murtala ñoom ñëpp ku ci masaan dikk fii da ngay mel ne ku fekk sa waajur ndax da daan wax eh, sëñ sëñ Murtala Murtala moom du sama du sama rak sama sama doom la loolu la daan wax sëñ Murtala Eh, ba doome seen doom yi sax di balaa masaan bég da leen a woo dikk teg ci wetam muy sëñ Fallou meeg sëñ Maam Mor ñoom ñëpp da leen di woo dikk ñuy toog ci kanamam di waxtaan day dafa fekk nag doomi sëñ Tuubaa moom buñ na lay waxal ci moom dootoo mën a xam lu lu looy wax ci moom da daal di jaxasoo ndax man ku ma ci toog ci kanamam sax du du ma du ma mën a wax kon nag buñ ma laajee ci ñoom moom itam du ma ci mën a wax leen lu dul barkeelu ci lool rek te jox soxna Astou Sam mi mu waaw yar bi nag moom mu weesuwut di di di leen tàggat waxtu julli bu jotee dootu am sago kenn dootu sëqat ku dugg ci kees gi dana la dana la yëlbu da day day day fab mbub mi di di lëm ba ba ngay génn kees gi du dégg kenn koo xam ne waxtu julli dana jot muy wax loola mësu koo mësu koo mësu koo nangu dana ñëw yar ci liggéey di ñu togguloo boo dee togg fii boo génnee mu xam ne ca wana wa nga demoon boo dikkee dootoo laal laal ko duut nangu nga jege togg da boo taalee fa ngay toog ba ba ba ngay noppi doo doo doo doo fa jóge bu dee guddi la da danga da da ngay nekk ca ba total ba ba nelaw fa léeg-léeg mooy dikk euh, fëgg laa ko tànkam nga nga nga jóg wala matt ma ngay xam bu dal ci sa kaw nga nga tiit jóg nga xam ne yaa ngi nelaw kon moom yar bi jàng euh, di di di ñu jàng jàngloo di ñu sàmmloo suñu suñu jaamu yàlla daal waaw loolu daal moom xam nañ ko ci moom. waaw liñ ci xam lépp daal mënuñ cee. jërëjëf kooku mooy bàjjan Asloo moom sëñ Mahmoudan Lo moom sëñ Mokhtar Binta Lo euh, moo doon yëkkati kàddu yi témoignage yu jëm ci soxna Astou Gawane jox soxna Astou Sam moom sëñ Samdu la moom itam ci mag ñi nga xam ne ñoo njëkk a ànd ak soxna si ci la bokk di ngeen di ko soxna Astou Lo waxee kon jox ko moom itam mu ñëw andil ñu jikko yi nga xamee ni xamoon na ko ci soxna si te mu marqué woon ko ci moom bisimilah. barkeb Sëriñ Tuubaa ak soxna Jaara barke Cheikh Bassirou asalaamaaleykum wa rahmatullahi noo ngi tuub tey jéggalu soxna si tuub tey jéggalu ndax liñ war a war koo jéggalu bari na lool yéen ñi sunu kilifa ndax lan war ci soxna si mënuñu ko waaye nag lam nu diggaloon ca lan ne ba defuñu ko man nag soxna si xawma ci lu may wax moo ma jur mooma moom moomum saa yu ay jur ay jaam jaamaat lañ sëñ Mor ma meññ sama ndey ak sëñ Baara moo leen moom soxna bu sa sama ndey yu baaxee moo leen moom keroog ba ma ferem soowit la ma san ba yëkkati jox ma ko mu daal di ko ne ma ko ba mu ma téyee ba ma xaw a dëgër delloo si ma mu ne bu ma yaree ndeyam yi dañ koy xëccoog man daal jox soxna Amin Tamar ne ko jàngalal ma ko alxuraan ba ma jàngee ba am fukki at ak ñett lan nañ ko delloo jële ma ci soxna Aminta a ma andi ma téye ma ne ne nañ jàng liggéey man bi si ñibbisi fi dem naa kër fekk na ma joxe ma ndax ah, xam naa day yaakaar naa dama fee ñëw ba at mi sëriñ Basiiru nelawee la korite gi paraxaan ci sëñ Moustapha Basiiru njëkk ci lañ ma jox sëñ Moustapha bi sama baay ñëwee wax moom ne ko dama ko bëgg a jox sëñ Moustapha mu ne ko moomoo ko na Moustapha wax ak man sama dem dikk defi palaay waxe moritam ñoo xam ne ñu def bis ba ma gane àdduna yi dégg naa jotuñu maa wutali ko ma tudd sax moo far tudd ma ba ñuy def sama Pastef it moo toog nee na sama lépp daal moo ko def moo ma pareel daal te ma sama benn le nag fa ma defar nit daal man na ko am na bis fii ma mu yàbbi guro jox ma ma sex ma daal di koy yàbbi booba gone la ci ndulo gi mu ne ma da ngaa xamut li ma la jox de ma di ko tufli di ko tufli mu daal di sox sa ñoom kii moo réew lii ma ko defal daa xamut li ma ci jublu ma ne ko maam nag yàbbi ba pare ju pare joojee nag defal na ma ci lool ab tubaab boo ma noonu lii la ca topp duutuma ko xam mu daal di ma ne ñaal ma nga barke sëriñ tubaab mu ne ma yàlla buñ la ci ndax waaye yàlla boo xamante dara ci tubaab fi mu ne xawma ci dara dimbal lii dimbaleeti na ma ko ginnaaw bu ma dimbalee nag keroog ba ma jóge fii baay Musa mi ma ma defal xam naa ko gis naa ko ñetti wang la mujj dóor ci sama bopp bi yéeg ci oto bi ma aj samay tànk mu wàcc ñëpp yuuxu mu dénk ma ñëm barke sëriñ tubaab maamu na ngeen lu ma ba ma fen ndimbal lu ma fa fekk rek yàlla ak moom kon nag man sant ak ñaanal ko xam naa ne daal waruma day Serigne Touba de nee nañ ba ñaarog dax la foo dëgg ne foofaa neen waaye soxna si day ñi mbiram di demee sax ak ñi moo ko ni bëggi moom bëggut dara fii waaye fa nu jëm foog naa ne de duñ fa ñee kon nag dañuy ñaan ci barkeb Serigne Touba ñoom ñii ko fi nekkal man de oo ma jot ndax la ma digaloon maa ngi ci ñoom it ña nga ca waaye nag tax na na ma war a ñëwee màggal gi ma indi ba màggalati waaye ñoom ñii sunuy jëwriñ te manqué luñ dara maamu nag yéen ñiit ñu ngi leen di sant di leen ñaanal ci barke Serigne Touba Soxna Jaara yàlla na leen yàlla yokk te wéral leen te defal leen xéewal ndund la ji loo ci mën a fàttaliku di na ko fekk si ñun ah loolu nag de moom gisuma ko ko fa fekkut te Serigne Touba jur la gisuma ko ko fa fekkut te Serigne Touba jur te seex bu ma xam ci addina gis naa nga raam ak say dara jub soxna si seex bu ma xam ci àddina mas na maa gis sëñ Ablaye Fall ndar ñëw fa yooloo dama ne sëñ bu rafet bii raam nag sëñ boo xam rek ci àddina booba tundundu la bi ku ko sëñ soxna Astu Gaawaan seqal amut ndax sëñ Mor Faati moom moom moon tund wa te léppam da ko bàyyi woon soxna su ba ci bàyyi daam saar ñoom ñi loolu moom xanaa xam ngeen ci dara moom ci njabootam lañu kon nag soxna moom mbirum góor la yor keroog ba mu bañ ma yóbboo ci sëriñ Moustapha li ma wax dama ne soxna Astou Gawane soxna Astou Gawane moom sëñ Basirou loolu la ma sëñ Moustapha njëkk wax ci àddina ma dégg ko ci wëllëre guñ wëllërente maamin moo ma wax ne ma su ma masaa kii rek sëñ Basirou ma yóbbu Kaolack ci docteur loolu moom soxna see ma ko wax soxna si moom doomi sëriñ Touba yëpp ko bëggoon jox ko cër te ci jëmmam la nag ak jikkoom ak meloom moom xam naa daal doomi sëñ Touba joo jaxasool ne noonu la kon nag dañuy ñaan ci barkeb Serigne Touba soxna Bali mii ko fi nekkal yàlla yàggal ko fi wérali cëram ak soxna Astuloom ñoom yeeg soxna Faati Xujja ñoom ak yéen ñi taxaw mbir mi ak Maamoon Gay ñoom yeeg yéen ñëpp nag barkeb Serigne Touba ñun de bu ngeen nu gisee bu ngeen nu gisut xat-xat yeeg wéradi yeeg yiñ nekk damaa jóg bay ñëw nii léegi waaye de buñ sañoon nii ngeen koy defee lan koy defee waaye nag li ci nekk lépp doy na waar waaye noo ngi ca ndigal lam nu digaloon rek te ñëwunu ken ndax moom lu am yàlla moom jërëjëf sant nan bu Eh, jërëjëf tubaarikàlla kooku mooy soxna eh, tubaarikàlla la eh, Astou Samb ngeen dégg témoignage yu am solo nga xam ne yëkkati na ko soxna Astou Gawane rawatina nag Ndoulo jooju nga xam ne moom moom fa nekkoon ak soxna si tubaarikàlla dégg nañ fi loo xam ne nii doy sëkk ci soxna Astou ak soxna Astou Samb am naa soxna maam Fatou Khoudia moom la jox bu ko defee moom sëriñ Habibou bokk ci ñi nga xam ne ci kër gi lañuy yoroo moom itam. mu andil ñu li nga xam ne xam na ko ci soxna si ci jikko yu rafet ak yarin yu mu daan yar moom soxna Mame Faty kon bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulah. Mm-hmm. mbokk yi mbokk yi maa ngi leen di nuyu seen mbokkum taalube Mame Faty Khoudia Mbacké moom sëñ moom soppeeku soxna si leen di nuyu lu bari di leen siyaare di leen jox seen yéeguwaay bu baax leen ñaanal te di ko sàkku ci yéen maam si moom. soo Sëriñ Tuuba moom daa neexut a waaye nag ñuy sant yàlla sant Sëriñ Tuuba bu baax a baax a baax sant suñu ñaari waajur yi ñu boole woon ak moom. ndax euh, fàttaliku nga kañ nga fi ñëw ak noo fi ñëwee ci kër xam naa am na lu ma ci fàttaliku de waaye bëriwut de boobu ne xam naa sama juróom-ñaari at moom matagut ndax li tax ma xam ne boobu matut. sëñ Cheikh Mbacke di nelaw juróom-ñaari at laa am te boobu fii la ma fekk li taxit ma xam ne boobu ab tuut tànk laa boobu bi ma egsee sama maam andi ma sama maam asu ki jur sama yaay da ko ne delloo ko gone kuñ koy jox yaa koy jëli rawatina nag sama rakki bopp ji kii maa ngi moomu bokk baay lu ma ko yónni kenn maa koy jëlali sama bopp maa ngi fàttaliku ba mu may jël si it oto bi ci la dugg safoor bu ñuy wax Gédé ja moo ko doon dawal bi ma jël see ba ma ñëw ak musóoram gu nekkoon ci boppam am ne mètre bu mosaan musóoru da koy natt ba mu carré am lay doon maa ngi fàttaliku mu dindi ko ci boppam daal di koy jox tëyër bu ñuy wax sëñ Jóob ne ko ñaawal ko ko ab robb muy robb bu ma jot sëkk ma sol ko moo tax ma xam ne boobu moom ab tout tànk laa ndax am mètre moom ku mu jot Euh, fi laa nekk ba ni màcceeb liggéey lu ne ci man moo ko ci def lu ma xamit moom la ñu di ko sant. yar yi nu soxna si ni nga leen daan yare ci kër gi itam bëggoon nañ nga dikkal ñu bi de moom xam moom wax dëgg réewut sonal kenn ci lenn xanaa pine rek ñu nga moom day léej te bari ay kii tam man damaa xawoon a sob <laughs> moo tax dama daan dij rek fi wetam man nit ma saan def dara sax bu ma ñëwee di ko boole. danaan yaa toogut ci sama wet loo toogoon fii kenn du la fekk di la def dara jàng lool ji la alxuraan ca daara ja di si toog fi wetam rek mu doonoon daanañ jàng kër yaam ay ñang daanañ jàng kër Baay Ceerno Siise moom léeg-léeg sax boo tappale woon sax ñëw ni ko maam jàngi naa ba ñëw bis boobu lu mu yëkkati la koy jox ndax bëj bëggoon lool alxuraan te bëggoon ko koy jàng foo ko fekk mi ngi jukki alxuraanam bi hmm, te di ñu ci soññ rek nag moom am na jamono sax xam naa ma deme kër sëñ Abibu mm, sëñ bi xam na laaj ma sama àll woo soriwut mm, mu ne ko maam Fatim dama bëggoon nga abalaat ma ko ba ma jàngal ko ba noppi delloosil la ko waaye daf ko ne li mu war a xam lépp dana ko xam te xam naa ne moom lima xam moo ma ko sol waaye jàngu ko alxuraan ji nu ma laa koy jànge xëy na mokkalu ko lool de waaye weer bi ne mën naa cee wàcce ñaari kaamil sasoo naa ci bés bu mën na maa jàng juróom benn isib bu samay xat-xat bariwut lu baree moom ñett yi moom dinaa ko jàng te loolu lépp xam naa ne moom moo ko def ci man waaye jànguma ko ndax ba may bàyyi ci daara ji xar sama bi jeexut juróom benn isib laa am tam xam naa wàllu liggéey bi itam ñaar ak bana yoon ne mën a gutal seen bopp ba leen di boole njël ñaar ak ñaar ñooy bokkuk ay bu ma masaan ne ci waañu ba toll ci cere ji di laalo sax na maam faati bàyyil ma wut ma sax luy bës ko maam luy bës mu ne ma bës mooy laalo te doolee koy def te da ngaa amagut doole boo tolloo ci bës na nga ñëw wax ma ko ma boole laa ku la bësal am yërmande lool nag ci ñun nanguwul ñu sori ko benn yoon itam mu masaan demit dugal ñu ci oto bi ci ginnaaw ba mu fees mu door dugg ci kanam ànd ak noonu guddi jotee ñun ñëpp ci néeg bi ñun lay tëddal ci néeg bi lañ daan fanaan néeg bi ñeenti lala fi nekkoon ñaari lal yi moo doonoon ay lalam ñaari lal yi ci des mu jox ko ñun gone mbàkke mbàkke yi ñoo ciy tëdd ñeen nañu tëdd ci rob bi waaye fi moom lañ daan fanaan tëddut ci moom daal yaa rocc ko dem tëddi feneen waaye moom guddi gu sore sax bu la gusut dana la wër lu dafa ragaloon muus lool te bu guddee buy dem ci wurumbal bi faaw dana la yee nga bijjanti ko boo demee toog ci bunt bi génnee nga daal di yoraat tors bi jiitu mu topp ci yow moom ba egsiwaat ci néeg bi jaam yàlla yi nekk xam. waaw moom kay moom kay xanaa gone bari tappale waaye kon kay moom lëggéey ak jaamu yàlla rek la daan santaane moom bëggut kenn toog la fay neen bu la gisee defoo dara sax ay woo jàngi woo moom wala ñëwal ñëwal topp sama wet ñëwal teeñ ma mbaa ñëwal defal ma dara nga nekk ci bopp bi di raay bam nelaw ngay fayda boo fayda mu ne waa kumba fekk dara nekku ci sax waaye teewut moom da la koy pinee rek ndax bañ nga doxe hmm. ko ñaanal bu baax suñ borom yokk ay leeram am nañ ne sax ma nga ca waaye nag ñaan moom day lu war loo xam ne moom ñëpp ko soxla. bis bi mu wàccee liggéey maa ngi koy fàttaliku bis bi liggéey maa ngi koy fàttaliku ñetti fan yi la mu war a xëy. bis boobu sax maa ngi jàppoon na dem Mbàkke Kajoor te màggal la xam naa boobu man li muy wéré di lépp taxul sama xel moom ñaaw benn day dem may Mbàkke mais du ma ko fàtte may Moustapha mais toog naa ma fàtte yow mii li nga xam bëriwul de sans ni mel nga naan dangay màggali Mbàkke Kajoor maa ngi naan dimbale ma deman dama bëgg a dem ak jàmm ñëw ak fekkaat ko fi bis boobu it maa aaye woon soq ñu daan def boo ne suba ngay aaye ñu nattale pepp dañuy soqalante soq nii ma naan leen man damay dem Mbàkke Kajoor màggal tey de dinaa tàggu sama ndax mosuma caa dem dama daa fekk daanaka sëñ bi a tàmbali màggal gi rek waaye koy waxee noonu rek ci keppaar gi fi toog rek yaa ñëw yuuxu leen seen maam dem na jumaa ja lii lañ ci am xam ne man dama xam ba mm, yàbb sa jóob ki bokk sama yaay bàyyi sëñ Mutulaa yoroon ko nee nañ moomuñ fi jële yóbbu këram dama yeewoo foofu laa yeewoo ma ne ko lu ma fi andi mu ne ma koy bi ngay ñëw xamoo foo ne sama yaay ñoom ñëwee ci xew-xew bi foofa lañ ma fekk loolu maa jël si andi ma ci gi moom maa ngi koy fàttali ko. ok jërëjëf Mbacke jërëjëf macha allah kàddu yi am na solo lool eh, tubaarkàlla tubaarkàlla wax dëgg yàlla lii rek moom la ñu soxla woon ci ci témoignage yi nga xam ne moom lañuy def ci soxna si ndax feeñ na ci bu baax a baax ku mën a yar ku bari yërmande ku mën a jàngale waaye ku mën a toqi doomu aadama teg ko ci aw yoon. loolu lépp feeñ na ci ak bis boobu nga xam ne fàttali nañu ko muy 1984 ñetti fan yi kor yooyee macha allah kon. ajan asu kon hmm? ah ndeysaan kon euh, soxna ma Astou Touré moom lañ jàkkaarloo nii moom moom seen mu jaw Touré moom itam bokk ñi nga xam ne ci kër gi lañ yoroo ñu ko jox kàddu moom rek incha allah bu ko defee mu ñëwoon ci soxna si ak jikko yi nga xam ne marqué woon na ko ci moom incha allah. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim laa hawla walaa quwwata illaa billaah ali asim asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sant soxna Suga Mbàkke di ñaan yal na yàlla taas ci wax nag soxna Suga moom wax ci moom dara dara waaye nag ñoo ngi ñaan daal yal na dimbale bañ man cee taataan tuuti rek liñ ci xam. njëkk waaw man nag eh, bi ma ci ñoo xam naa boobu ay juróom benn ay juróomi at ak wala juróom benn at laa war am ndax bi sëñ Cheikh Fall may ne la boobu maa ngi am ay juróom ñaari at man nag dañ ko tuddee sëñ sëñ ma jaw doo ko tuddee soxna su gaawaan mu ne ko indil ko ko fi nekk ba ba kooka mën a ñëw ci daara ji moo war ñu indi fi man sëñ Fall maam loolu ma tuddee mu indi ma fi nag mu bëgg ma lool soxna si nag moom macha allah lay wax ne suñu suñuy wax mu naa man li ma sama baay bi digal ca laay ne jàng alxuraan guddi gi da ngay loo guddi guddi boo xoolee gis mu toog wala muy naafila bu bët set war ma jumaa ji maa ngi fàtte ko aju ma jot dañu ànd ñu dem ci kër sëñ ji sëñ Abdou Lahat kër sëñ Abdou Khadir siyaare fu ne waaye ñu tollee ba jumaa ji ba fi ñu toll nii penku jumaa ji heure bu ne su ko jubee danaan ngàbbal daal di du ba masa sol daal mosu faa soli daal diggante jumaa ji ak daara kaamil soxna su gaa mos fee sol daal ak lu naaju tàng-tàng nag nga xam ne loolu tamit ñu bari war nañ ko bàyyi xel waaw moom daal xam naa ne moom soxna si moom yar ñu ko yàlla fayal ndax it ni muy yare moom dalay bëgg loo ba man ba ma nekkee foofu bu ma masaan dem sama kër maam am na boo xam ne nii ma dem ñu naa ma doo toog xaa néeg nen yi ma leen man ma dëkk kër nen ke soxna su gaawaan ndax lépp fi ne amul leen looy dem rek kër nga dem seen kër loo luñ la wan rek fii lu ko ëpp nga fi gis lépp lu xale yi bëgg rek booy dem sa kër yaay boo ko tàggoo lépp la la jox da ngay ëmb ëmb ba yóbbu seen waa kër ak yeneen ak yeneen su guddee day wër di ñu léemu di ñu ñaanal nga xam ne foo waay mën a dem rek ak loo mën a kii rek dara du la fa ba fi doon nag képp ku fa yaroo ku fi jóge koo xam ne ni Kër Soxna Su Gawane nga kër goo mën a ne da nga am tawxiid joo xam ne soxna Su Gawane moo ko def ci yow kenn du fa gën a mën a jàng alxuraan kenn du la fa gën a jàng xasaay xasaay Sëñ Tuubaa moom ñëpp a ko bëgg ngir soxna su gaawaan rawatina man si ndidi bii heure bu ne su ma koy jàng soxna su sama xel ci moom rek lay nekk mu bëggoon mboolem nag waa Sëñ Tuubaa yi nag amuk taalibe lool nit ñi fonk ko lool nag képp koo xam ne nii maa ngi fàttali boo xam ne kese bi dañ dem ñu dem man ak sama maam Fatou Djilane ñu bari ñu nuyoo léegi mu daal ne demal woon ma sëñ Abdou Lahad ma dem fekk mu sonn ci suuf moo sëñ moo Mamoun ma ne ko salaamaaleykum an sëñ mu ne maa ngi nii ma ne ko doo sëñ Abdoulaye kat sëñ Abdoulaye dana tëdd suuf wuy sama maam aussi waaye gis ma ko waxee sëñ Abdoulaye dafa ne bëri na saan ma ma la topp ci kaw nga xam ne moom fi ñu ko teg moom yàlla ak Serigne Touba bi ko fi teg moo tax ñëpp teg ko fi soxna su gaa ñëpp a xam ak ab cëram ñu nangu ko jox ko ko muy ñim bokkal ak ñëpp yal nañ ko yàlla fayal yal nañ ko yàlla fayal ci bàkk soxna Suga bàkk di sant nag mboolem nag ñi fi nekk nag soxna yi yëpp rek mu soxna Asulo ak soxna Sam mii ak soxna taxawaay bi ñu taxaw ci kër gi ñoo ngi ñaan daal yal nañ yàlla fay rek waaye daal macha allah soxna Suga daal kenn mënu cee wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. ok ñu ngi jàkkaarloog bàjjen May Moustapha eh, moom itam bokk ci ñi nga xam ni ci kër gi lañ yoroo. dañ koy jox kàddu gi moom itam laaj ko rek kañ la ñëw ci kër gi ndax fàttaliku na ko ak li nga xam ne xam na ko ci soxna si incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah yéen mbokk jullit maa ngi leen di nuyu leen sant di leen ñaanal sama borom xéewal ak tawféex ñaan ci barke soxna su gaawaan lii ñu fi liggéeyal sa soxna su gaawaan yàlla nañ ko sama borom fay fulal nu ko yóbbu nu ko fu kawe suñu njort ci barke salaatu faatiha soxna su gaaw nag man boo ma dee laaj ci moom moom wax dëgg yàlla moom xam naa moom damay jiib rek waaye yaakaar naa mun ma cee kii lu baax. nga ñëw ci kër gi ak fi ñëwee. maanaam moom bi may ñëw ci kër gi moom wax nañ ma ne keroog àjjuma jan ma ferale samedi ja bàyyi Moussa Gueye la yabal ñu boolem ak sër ma boote woon boole ma ak sama maam mu boon ma indi ci kër gi keroog ba may ñëw nee nañ damaa mara naan sax moom rek laa man bu mu ndaayi gudd na waaye ku ma taxaw ci bu sawet dama naan dama mara naan rek lañ mënoon nee nit ñi jaaxle si coow loolu sama yaa amanteeg jaaxle ndax maa nekkoon taawoon mu ne doom ñi nga xam ne damaa mara naan sax rek la man bu demee te dégg naa ndaayi guddam bu maree kan moo koy may mu naan neeti ma ba ngay ñëw ko soxna sax xëy na am nekkoon ci man nee nañ ma bu ma sant dem jumaa ja danaa ànd ak bu demee jumaa ja ba benn bis nee na mu woo ma ma ñëw dañ ma koo nett ne ma loolu xam moo ko sax mu woo ma ne ma maay ndax wér nga ma ne ko maam wér bu baax mu ne alhamdulilahi rabbil alamin ndax boobu am na lu ñu daan wax na nee na damaa xawoon a yëngu ba dañ daan wax soxna si dañ koo jox ndax boobu yëngutu gi daa poor nit ñi naan soxna si dañ koo jox daa wérut nee na def saa dem jumaa ji nag yóbbaale ma benn bis mu toog daal mi woo daa ne ma may wér nga ma ne ko maam wér naa pelak loolu moom ñu ma koy nettali man fàttaliku ma ko xam naa daal moom ku dëddu woon addina la demoon na ci ba dëddu addina ko sax ñun ñi dañ ci daan def mais soo wet ma masaa tabaski wala kori wala dara da lay xoot day xotti ñaari tiisa yu bokkut benn bi moom la ñuy defalee sër ñun ñëpp benn bi ay dara ay yem fii waaw yu yem fii natt la fuddane la demal fuddanu ji mosu ñoo sol complète eh, yére yu bokk mosuñ koo wutal ñu waroo rek sër bi du bokk ak mbuub mi comme maanaam dem demee ci àddina bëgg bañ dëddu àddina mi taxoon na tabax rek bañ ko koy laataa defal xaw na ñoo sonn mm-hmm. ndax bëgg ko woon ko courant mi keroog bis bu ñu ko fi ni maa ngi koy fàttali Kalador Diagne mi moo ko daan indil sondeel yoo xam ne yu rëy rëy la daan doon ñu daan ko fanaanoo taar keroog bañ fi njëkkee def courant néeg bu mag bañ ko njëkkee def yënduwu ca bis kilim bañ fa defoon dañ koo mujj dindi Moustapha nangoo toog moom àddina moom waxu ci woon dara bëggu ci woon dara lépp moom àddina tabe woon na tabe goo xam ne itam jaaykat yi daan jaay dañ daan wàññi seenum jaay ba mu egg ñu ko ci kaw mbaan bi dem seen yoon da di joxe di joxe di joxe ba dootu yor lu wóor na yàlla danaan dem ba bu jeexee mu ne demal ci bitu guddi sax na ma debal nangam ndax bëgg a joxe jaaykati bañ danaa seen bañam ci kaw jaaykati caaf bi danaa seen caaf bi ci kaw togg gi nag façon togg bu ne dañ koy togg café gi dañuy tàngal suba di tàngal di tàngal ba ba ñuy tëdd bëgguta toog bis bu gis tar mos amul café bis bu nekk daanan togg lu man ñetti togg wala ñeenti togg benn bugg sa morom daanan togg laax daanan togg suum bi daanan togg ceebu yàpp daanan togg ceebu jën daanan togg ñaari façon cere lépp daanan ko togg ci kër gi te dara nag lépp joxe rek nee na ku bëggoon dama daal. wallaahi xa joxe rek. dama daal ndax mu bëgg ko. ah mu nga xam naa Mbacke. da ko bëggoon ah xam naa moom lañ mënoon bëggee xanaa doomu aadama yi rek waaye daanaka nag du jógee ci nga xam ne fii la jógee moom. loolu moom mos a nekk moom. waaw waaye da ko di ko jox. moom daal xam naa daal moom suñ borom daal moom moo ñu ko indiloon rek. xam naa waa Kër Sëñ Touba ñëpp joxoon nañ ko cër Kër Sëñ Saliou gi ñun ŋàbb nañ kafe ba taay yóbbu ko Sëñ Saliou fekk Sëñ Saliou ci néegu ñaxam bi ku amul nag kum daawul yët café ci waa Kër Sëñ daan tàngal café yëkkati tarmus ne leen di ko yët café gi wax dëgg yàlla am daal moom xam naa daal yàlla nañu ko sans borom fayal daal lañ ci mën a wax suñ borom bi mën a fay daal yàlla nañu ko fayal xam naa na ci ñun loo xam ne daal ñun sant nañ bu baax ndax ñu mboolem ku mu yor foo nekk mën nga faa ak lu mu metti metti nu ma rek mën nga faa nekk loolu koy sant a demee noonu mboolem ku feeroo ku nekk daal sant ñoo ngi ñaan sama borom nag mi nga xam ne mooy def sama borom fayal nu ko yokk leeram ci bu fi ku fi dem tey rek tey ba am fi tey lu ñuy wax bay boo na nga ko ñooñ ak yàlla def ko sama mag boobu nga xamante ki ko yoroon muy taalibe di Sëñ Abdou Khadir boobu courant bi amagut ci kër gi gaz bi la ma daan jox muy lampe kolma Baye Moussa Gueye ko daan yor nga xam ne booba otoy Mbàkke Tuubaa yi juróom ngay paas boobu juróom laa daan paas léeg-léeg léeg-léeg dama koy yenu ba kër sëñ Murtala gi ci kii bi di ci yoonu Mbàkke bi su ma demee buñ ne ma nekku fi ma daal di demaat wuti kër sëñ Moodu bu sa jën lamp gas boobu maa ko daan sarse ji te dama ko daan yenu tem yenu dikk mu doon nag ku am yërmaane koo xamante daray àdduna juru ko lu dul yàlla yonent bi sëriñ Tuubaa courant bi nga xamante ne ni Clédor Diagne bi mu ko fii def ñaan na ko ko ba tey nangu koo def nangu ko mu ne ko man lu sëñ Touba bañoon rek loola laa bañ mu ne ko nag Mbàkke da nga yor ak njaboot te heure bu ne da nga leen liggéeyloo heure bu ne da nga leen koo saafloo kafe Mbàkke mu bëggoon rek nga jox ma ci ndigal mu dem topp ko topp ko topp ko ba mu yàgg nag bi mu ko ko nangulee dana ko Clédor loolu nga doon wax def ko waaye du yàgg-yàgg ba ma ni ci nii sama baaro eh. noonu mu ko waxee noonu la ko defee de lum guddi guddi buñ ko masaan di upp di upp di ba yàgg maam am benn téere bu mu xelam dem yaay dem taalal ko fu génn bu génnee ci nit bi nga xam ne ci la génne àdduna bu ñëwee foofu ci guddi gi daa nga nekk ba suuf sedd fu jëm yaay ànd ak moom comme ne di yow la rek yow lay doon. ok jërëjëf wax noonu. Euh, tabarkallahu suñu Abdou Samad mu suñu soxna bu ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ndax bu ngeen gisee soxna yi lii ñu wax ci soxna Sogane tey jii ñoom ñu doon jonjoo ak moom ci jikkoy rafet yi ñu wax ci moom dëddu àdduna gi am yërmande gi ak jubóog njaboot ak Sëriñ Tuubaa gi bëgg gi bëgg Sëriñ Tuubaa ak mën a muñ ci lépp feeñ ci waxtaan yi nga xamee ne feeñ na ci soxna yi euh, bàjjan maam Faty Bass moom Serigne Bassirou Mor moom lañ jàkkaarloo nii moom lañ war a jox kàddu gi incha allah bu ko defee mu ñëwal ñu ci soxna su gaawaan ak jikko yi nga xamee ni xamoon na ko ci moom kon bisimilah soxna Mame Faty moom kay si moom yaa xam ne yoo daal waaw ñoo ngi nuyoo daal tey ñoo ngi wax asalaamaaleykum di nuyu ñëpp di siyaare te jégalu day sant soxna Sugane Mbacke bu baax a baax a baax a baax rek waaw ñoo sant bu wér daal xëy sëñ Touba moom kon ko sun borom féete rek da ngaa sant yàlla cër la ab cër la yombut. kan nga ñëw ci kër gi ak de ba fi ñëw xam naa booba mu amee ay juróom-benn juróom wala ci la yem daal ndax sun borom moo ma boole ak soxna su gaawaan ndax soxna Fadja dafa naaloon sax ñu ma bëggoon a jox maam Aminta jo ma ba sàq waaye yàlla dogal. bi soxna faj ja jógee léegi soxna Astou yónnee laaj ma bi nga xam ne bi bëgg a jël si maa ngi ngas ba diggante nekk ci dund ak dee mm-hmm. ba keroog bi nga xamee ne sax mi ngi ñëw di ko yónnee soxna muy même fa fekk na ne ah du ngeen dem leeral ko soxna si da borom sañ-sañ la du ngeen ko leeral li mel kii nag da soxna moo ko sañ a laaj soxna Ami Touré daal di ñëw jël watiiram jël ma ban ko ko waxee dañ ne saafara si nekk mu ànd ak soxna Ami Touré jël ma ñu indi ma ci kër gi benn soxna soo xam ne moom sama yaay nekkoon muy maam Moussa Diaw doomi sëñ Mansour Diaw la ku ne xam na ko doomi Mansour Diaw ndax moom sama maam ñoo bokk ndey sëñ Mansour mu jur sama yaay léegi nag mu ne xaar ma dem ja soxna sa def koy fi ajoor ba mu ñëwee ni ko man de damaa ñëwoon ci dëkk bi bëgg a ànd nag soxna Fatou Fall dem toole te man wëraguma taalibe yi te damaa war a wër ba jekk doog dem mu ne ko yow de bu sa yàlla ma la indil daal defarum néeg jox ko ni ko toogal yoroma maam Faati waaw dar ko fi téye maam toog fi ak man ba ma miin mu doog a dem te kër ba mu koy laaj Yaafal dafa ñëw daal ni ko man de fekk ki ma toppoon ci moom soxna May dafa def soog bàjjan ji baara ko yoroon mu gaañu booba mën naa sëy bi muy gaañu léegi nag moo war a dem toole léegi nag moo ñëw sonn si ne ko man de damay dem toole te amu ko ma wéttali ndax may gaañu na te maa faat dama ko bëgg a ànd moom di ko wéttali koo man ne ko xanaa faat faal xam nga ni maa koy laaj mu ne ko déedéet mu ne nga ni ñàkk ma ko ma yor de gis nga sama kër gi ni mel waaye ku ma xoolee sama mag gi laa bëgg waaw fi nekk ba keroog bi may war fii di sëy di dem belal dégg nga soxna May moom moo doon dox sax li war ci ba lépp moo ko doon dox. soxna May saxeer mii moo doon xarit soxna sugaan lépp lu sëñ Bala doon doxaloo ndax sëñ Seex sëñ Bala da ko yar waaw. dégg nga sëñ Bala ko yar ñu tànn ko mu jox ma ko ba mu ko laajee mu yónnee yónnee fii wax ko señ Bas léegi mu yónnee soxna su wax ko ko mu yónnee fi soxna May kër ba xaalis ba mu njëkk indi ba mu ñëwee. fekk ma euh, Astou Gawane Sèye Blaat moo fi njëkk a jógee ak ma ami Mbàkke mi sëñ daa Moussa yoroon xam nga moo fi njëkkoon a nekk sax waaw ak maam Faati Jili ba mu demee ba mu yëkkatee xaalis ba booba ëpp ba mu ñëwaatee la ko soxna suba boo demee ne Abdoulaye la mu jox doomi sëñ Abdou Khadre jox ko doomi euh, jox ko doomi sëñ Abdou Khadre sëñ Sèye Blaat moom lay jox doomi sët bu soxna Faty bi na man xàmmeewu ma leen <laughs> xamee ma xam waaw xamee ma doomu sëb laata sëtu soxna Fatou Dia delloo ko ba mu ko delloo ba mu eggee loolu la bañ a indiwaat ko kenn ba nga xam ne maa ngi dem belal soxna may la woolu mi ngi toog fii barke Seexul Xaadim ni ko yow laa seedal sant gi ma sant maa faati barke Serigne Touba mu toog ci néeg bu mag bii loolu mu sant ma ko loolu mu sant ko ñaan a ñaan a ñaan ba dindib sëram jox ma muuroo indiwal sam yàkk ni ma def sa yére yóbbu lañ ko sebdu xaar mu ñaanal ko ndax dama ko sant ñu fekk ko mu fatu ñu fekk ko mu fatu ñaa dem ci bëkk néeg ba wax ko ko mu génne ñu fekk ko ci mu toog ci wetu mbaar mi di génne ab seesam toog ab bangam ñu génneel ko mu toog mu ñaanal ma bi ma ñaanal bàjjen jabaar moom ma jël séwante booba mi ngi boot soxna May mii nga xam ne moom la kii yor sëñ Bas sëñ Bas mi gaañu booba soxna May mooy bootu mu ne ko nan jaar ca yaay mu tàggu ko mu ne ko duñ fa jaar ñetti doomi sëñ Tuubaa comme ñaanal fooy jàdd macha allah léegi mu ne ko dañ taxaw ci buntu ba rek bu demee woo soxna Fatou Fall mu ñëw ñu taxaw ci buntu ba daal di woolu yaa Fall wàcc ma de suñ seex gobe ne du wàcc ndax ñetti doomi sëñ Tuubaa comme léemu doo jàccati fenn parce que Seexul Xaddim lii la wax ma daal di wàcc ma daal taxaw mu ñëw jox ma loxo ñu dem départ wuti bi la waaw jikko yi nag jikko yi soxna sugaan moom ah macha allah liñ ci mën a wax dafa bari doomi sëñ Tuubaa rek dafa doy jikko dafa doy jikko ndax looy wër ci lu baax looy wër ci nitug yàlla looy wër ci nitug baatin mi ngi sono sugaan bi ndax lépp lu la jaaxal soo toogee woo ko sama fekkal ca loolu seeru si yàlla ndax man damaa xamul lu dul moom ci moom laa yar may ñëw fii ama lu juróom-benn at waaw juróom-ñaari at sax aw ma ko kan bi ma nekkee bi ma waaw bi ma demee kër waaw yàgg Mm-hmm. man li ci waroon lépp moo ko fayoon def sax ko yónnee kenn may dembee la li war ci man sax ko fa indi kenn moo amee doom sama taaw fa la ko fekk waaw la ci lépp moo ko yónnee sax la ci lépp moo ko yónnee daane wala ëstu gaa faal ëstu bu a woo ne ànd ànd ak moom belal ndax dama ko sant ñu ne ko ëstu bu dafa aaye mu ne wala ëstu faal moom la àndaloon moo fa ba boo sama doom ëstu gaawoon ëstu ëstu faalum sëñ ceerno faal mi ndax ëstu faal waaw lii lépp am na jox dëgg yàlla sant yàlla nag wér a wér ab cër la ndax nekkuma woon ci sama kër baay man dong te man la ci suñu borom tànn ma féete ak doomi Serigne Touba waaw ma sant yàlla ci lool nag dëgg yàlla réccu ma déet lu ma fi doon nekkee ndax suñu borom ngi may teral te sonn ma te lépp moo ma ko defal maa ngi sant yàlla bu wér nag. dëgg yàlla sant naa ko bu wér daal boole gi ma boo ak jëmmi soxna Faat ji ma nga xam ne moom la doon tànn di ma ci xool ba yàlla tànn ma indi fii waaw damay ñaan yàlla daal sun borom may nu fan bu gudd ba ànd ak wér ba liñ ci rek ak njaboot bi sun borom defal te yàlla dolli ay leeram taas ci barkeem ñu ngi koy sant bu wér nag lépp lu am rek moo ma waaw Mbacke jërëjëf. jërëjëf eh, soxna maam Faty Bass moom sëñ Basirou Mor tubarkàlla dégg ngeen li wax ci soxna si. Euh, ak cër bu réy bi nga xamee ne euh, séddoo na ko soxna Faat Ja magam ju baax ja ba ni moom njabootam gi di leen jëloon di leen xoolee soxna Faat Ja soxna Sugaan daal fu ñu waxee daal dimension bu ñu wax ci moom rek nga jàpp ne moom dimension boobu rek la amee waaye fonk mbokk moom mun tawee sa loolu nga ñaan suñu borom fayal ñu mag ñi nga xam ne ñoo fi yëkkati kàddu ñëpp rek macha allah te li nga xam ne wax nañ ko ñu jariñoo ko ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo koy topp euh, kon ñu ngi noonu kon santaat bu baax nag sëñ Abdou Samad bu baax a baax yitte ji nga xam ne def na ko ci soxna Aïssatou waaye laa xar ndax moom daa bokk njabootu soxna su gaawaan taxawoon ak soxna si lool ñëpp xamoon ak diggam ak soxna si moo waral bii màggal gi ñëwee mu ne télé baa ngi noonu fexe leen ba mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak soxna si liñ xam ci soxna si ñu wax ko bisu màggal gi itam noonu la fas yéene ànd ñun couvrir màggal gi yëpp loolu ñu ngi ñaan ci barke soxna su mu sàmm ko te aar ko yàggal ko fi tamay ko ak wér telem bii suñ borom yëkkati ko bu baax a baax a baax noonu lay sant itam Bichri TV ndax ñoom itam at mu jot nii la ñu ànd ci màggal gi e, plateau yi ak màggal gi yëpp ñu ngi sant ma Madiama ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo jiite télé bi kon mi ngi naan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu